Equivox TV ñëwaat nañu fii Pikine euh, ki ñu fi indi du kenn ku dul Abdou Bakhoum ku ne Abdou baaxum nag ne Ama Baldé ndax moom mooy manageru Ama Baldé mel ni mooy euh, bu ñu doon wax combat royal am na mbër royal am na manager royal tamit am na ndax moom mooy moom mooy bëree euh, combat bi di ñëw incha allah diggante Ama Baldé ak ak Modou Lo Abdou Bakhoum d'abord coow li xaw na bari combat Modou Lo Ama biñ ko taxawale ak léegi. dëgg la ñu nee nañu Ama Baldé jot na avance waaye ku di Modou Lo jotul avance tool yi tool yi bëri lool combat bi dina am ak du am ndax yéen am ngeen assurance ne combat bi di dina am. waaw jërëjëf maa ngi nuyu amateurs yi di nuyu axlu làmb di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre télévision bi sawate na mën na ne sud la waaye ñun itam lépp lu doxal làmb rek ñoo ngi ci parce que nii ngeen def nii di dox ci làmb bu ko ñëpp doon def rek dana baax. xëy na am na lu fi jaaroon sa borom yàlla mu ngi ciy def jàmm yàlla na jëm kanam lépp jeex tàkk waaye daal ñoo ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala lépp del siwaat lii nga laaj itam jar laaj ndax itam mënu làmb rek ngeen di dox yéen kon bu ngeen ñëwee ba tey bikin fekk si ma lii duma leen nangu dama leen koy nangul kon jàpp naa ne ci kàttanu yàlla li gën a rafet daal mooy euh, li ngeen di laaj ni jar na laaj euh, xëy na nag ay jot na avance ak jotul avance am na coow ak amul coow lamb moo tëdd noonu parce que booy seet ñaari combat ci ginnaaw waroon nañu mën a bëre muy Modou Lo bëre bi muy bëreeg Balla Gaye ak mu muy bëreeg Eumeu Sène yooyu combat yëpp combat la woon boo xam ne bi ñoroon na pour diggante muy Ama Baldé ak Modou Lo xëy na yàllaa ngi dogo dogal nag xëy na ñu jot avance moom bu nee jotul avance xëy na loolu la kii la mais ñun jot nañu avance ñun ñun jot nañu ñun bon ñoom nag xëy na ñoo xam ni wala Ndiaye nee na kenn mu jënax ji nag na ngay topp sa bopp bu jënax xëy na toll na foo xam ne fii xëy na loolu la mën a waxee moom ñun ñoo koy du ñoom sax la ma ñu déglu waaye promoteur bi la ñuy déglu ñun ndax promoteur bi yëkkati xaalis jox ñu li ñu war a def ci ñoom ñu ngi ci ci kàttanu yéen ñoo ngi préparé nañ ñu préparé yeneen combat yëpp du moom wala keneen ak keneen ak keneen ci kàttanu yàlla moom la ñu jox na avance am ci kàttanu yàlla bu ñëwee ñu bëre moom bu fekkee ne bëgg naa bëre bu ñëwee ñu bëre xaw ma nag na nga bëgg naa bëri ba la bëggul loolu ci moom la nekk. dëggam ku jot avance bëri te jot ngeen avance kon faaw incha allah di ngeen bëri ndax euh, côté boobu tamit est ce que mën yoo xam ne promoteur bi Luc Nicolaï nekk di waajalee combat bi instant bi ñu nekk nii. Ama moom mu ngi ci euh, mu ngi liggéey liggéey boppam mu ngi liggéey ànd ak staff bi nga xam ne moom lay war a àndal ak waa écurie am ak i entraîneur am di entraîné guddi ak bëccëg mu ngi entraîné normal. moom bu dul dara it moom day entraîné même bu amee combat bu amul combat parce que xam nga ne année yi ñu passé yëpp dafa année balance mais boo gisee da nga xam ne mu ngi entraîné la moom war naa xam xam na ne loolu mooy liggéeyam bu amee combat dina entraîné bu amul combat dina entraîné donc li ci des mooy li nga xam ne ni moom nañu jàpp ñun mooy ak lu mën a xew ñun promoteur bi xamaloon nañ ne ak lu mën a xewlu làmb ji ne am doomam ji mu fi bàyyi woon nga xam ne mën na bàyyi na lépp ak moom nga xam ne moom doo doxal moom depuis wala de sene mook papa ñoo ànd liggéeyandoo xamoon ne làmb ji na am moom en personne même suñu adversaire sax dégg naa ci jamono yi passé muy wax ci benn journal ne moom làmb am donc loolu ñun jàpp na am ba am nañu xam ne leneen wala keneen di wax leneen bëgg loolu intéressé wuñu li ñu daal moom dañu jàpp na moom na bu ci kàttanu yàlla bu ñu jógee fii Pikine di bëre ji muy arène nationale muy fu mën doon ci adduna bi moom la ñuy bëreel loolu lañ jàpp ñun waaw. voilà kon loolu xam nañ ne moom ngeen di bëreel d'accord waaye lan moo wutale combat ama bi ak ak yeneen combat yi yi weesu est-ce que am na différence wala amul différence. noo différence bi sorewul. Euh, parce que euh, dafa am ay VIP yoo xam ne moom la am ba la bëreel. ba yegg foofu. donc ci fànn yi nga xam ne moom la bëree ak VIP ba bëreeg moom moom mii kii muy bëreel nii dafa bëreeg ay magam ñii mu daan leen ñii machine yi ñii daan ko. donc ñun jàpp naa ne ci kàttanu yàlla li nga xam ne moom la ñu war def ci combat boobu mooy li ñu daan def ci yeneen combat yi rek la ñuy def dinañu entraîner dañuy préparer ni ñu war a def li ñu ko war a def fu ñu war a dem dañ fa dem li ñu xam dinañ ko def li ñu mënu sax dinañ ko jéem ci wàllu entraînement ci wàllu xam-xam lépp loo xam ne xamu woon ko ci wàllu xam-xam ci entraînement dinañ ko def lépp loo xam ne waroon nañ ko wut ci wàllu doole dinañ ko def lépp loo xam ne war nañ koo def ci wàllu préparation li ngay def pour am ndam ci kàttanu yàlla dinañ ànd ak suñuy bokk préparer loolu yàlla may ñu ci ndam bu soobee yàlla. boo déggee ñu ne yow mi xam làmb yàgg ci yàgg nekk ak Ama Baldé soo déggee ñu ne Euh, en dix combats Modou Lo dafay daan Ama am ñu koy wax loolu boo ko déggee yow lan la def. waaw <laughs> c'est-à-dire euh, ñu wax loolu non ñu wax loolu parce que xam nga euh, rumeur lamb moom man mënumaa tontu ko xamul ku nekkul ci làmb. man su may tontu ko ci làmb damay xool ki nga xam ne kii dafa dund làmb. xam ko waxuñu ne koo xam ne kii rek ci tournoi 2006 yeeg 2008 yeeg 2007 yeeg yooyu la dugg làmb am na ci ñoo xam ne ñu ngi wax ci làmb mais waruñu wax sax làmb. parce que li wëta wër mooy bu fekkee ne yooyu ca jamonoy combat yooyu nga dugge fii ci làmb yow wax dëgg yàlla pour wax yow ci làmb day xaw a jafe waaye képp yaakaar naa ne ku bëri nit ki mbapat war ngaa mën a bëri moom arène parce que ki ko yore muy directeur technique bu Rock Énergie muy euh, Aliou Dione dafa def sortie ci journal L'Observateur mu ne euh, Ama yorul technique wala tactique bu bu war a mën a yëngal Modou Lo dafa bokk ci nga xam ne bu bu joxe euh, ki sifflet rek mu dox seen adversaire parce que ñoom dañoo am ay manquement yu nuy euh, nekk di nëbbu yooyu yooyu ban jàngat ngay nga am ci. noonu tontu ko sax xaw naa kile waaye euh, dama jàpp rek ne Ama Baldé ba mu daanee bàyyi pël rek la combat ma a bëri ak Modou Lo yaakaar naa ne bu fekkee ne Modou Lo woon na ca jamono booba la ñuy bëri ñoom ba mu daanee bàyyi pël rek la ko daan te dañ leen tegal trophée trophée France lañ leen tegal. Euh, nommé Badiane moo ko tëggoon Ama Baldé jël trophée ba daan ki nga xam ne mooy Baye Pël jël bu rafet bu jekk bu sel wisé bu normal dépassage maa ngi nuyu Baye Pël la ca topp mooy euh, kooku loolu di wax noonu wax en vrai dire man xaw ma ko man ci làmb en vrai dire wax de yàlla xam na ko bu fekkoon nag maa wax ku mel nii euh, ñoom Ndiouga Dia ma fa nekk wala Pape Mbaye ma nga xam ne ñoo ànd barki dem ñoom Khadim Gaye gaak ñoom ñoo yi nga xam ne yeneen booy yi nga xam ne seen formation sunu formation fii lañ formé au niveau fii lañ leen formé ñoom Khadim Gadiaga ñoom Moussa Dioum ñoom ñoom nekka ñoom euh, Yaram Gueye ñoom ñoom sos ñoon ñoo leen formé fii ñooñu bu ñu waxoon ci làmb jinaa naa nangam ak nangam sax dinaa xam ne ñoom am nañu xam-xam bu ñu wax waaye koo xam ne kii vraiment xaw ma ko ci làmb su baxee kii xam naa ne am na am nay boo yoo xam ne xam naa dinañ ko tontu parce que xëy na daa waxee waxi ni supporter supporter dinañ ko tontu Ama Baldé bu naree daan euh, Modou si lan lay doon si xam-xam la si doole la si technique la wala si mystique si lu may doon. non man daal euh, li ma la mën a jàppal daal ci kàttanu yàlla dina ko daan dana ko daan bu fekkee ne ñoom ñëpp dañoo indi jom waxuma nag bu ñëw ci làmba rek kenn ku ne ci di jéem a seet porox la boo jara yooyu waaye jàpp naa ci kàttanu yàlla bu ñu taxawee bëree képp ku dagg si billet seetaan si làmba ji da nga kontaan te maa ngi yaan ci kàttanu sunu sunu tabaaraka wa taala Ama Baldé daan ko jël bu gaaw. ama yor na lu daan Modou Lo loolu waxat loolu kay werante wuñu ko ku daan tafatin daan Malick Niang mi nga xam ne ba léegi kenn ñemewu ko Malick Niang ngi biir traité de kenn du jël avance am tafatin a ngi nii gars yi di wax nii yëpp ay VIP dañu koo daw ñemewuñu koo jël tafatin waa ko bëre ak la preuve maa ngi ñaan yàlla ci kattan xëy na mu ngi bëre ak waa doom maa ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala euh, boo ñaan daan ko jël bu leer waaye champion la boo xam ne moom Tapha Tine du ñëpp a ko jël de ga yi yëpp du rocceek woon nañu la preuve am na ci combat yoo xam ne dañ leen Tapha Tine ak Ama Baldé fi nekk ñoom ñuy rocceeku di jëmmi Tapha Tine waaye mooy ku ko daan daan maa ñaar daan ñeneen say morom ba yegg si ba ci say morom ngay koo xam ne kii ëpp la poids gënu laa laa bëre ëpp la ngemb ëpp fit nga ne mënu laa daan ci noo ko foo ko teg. lu lenn lu mu lu mu lu mu ëppalee am comme lan léewootoo dellu loxo dellu avancé loxo dellu ginnaaw jang dam yee dóor song bëre daan non loolu mbër mu ko ci dax ama bu yow am bay am bay bëri bay bëri non ma ñaan yàlla rek ama daan ko sonko daan ko duma daan laay ñaan daan duma daan ah, ma ko da koy duma daan ko sax pour mu na may def mooy xam naa rek euh, làmb ji euh, maa ngi woo monde làmb yëpp maa ngi woo adduna bi yëpp ci làmb ji parce que euh, jàpp naa ne gox bi nga ñëw nii département bu gën a ci département ci ci Sénégal ci la bokk muy département Pikine fii ba Kër Massar la ñoo ngi ñaan waa ci kàttanu waa Pikine li commencé Pikine Thiaroye Guédiawaye ba ci région yi ba dakaar nga xam ne moom ay nijaayam mu ngi dakaar gii nii fukki pinc ci ñaar maa ngi mën naa ne ci am bale ci la bokk maa ngi ñaan waa Dakar ñoom ñëpp di ñaan région yi le commencé Kaolack ba ba ngay dem Guinée Bissau bi nga xam ne fi fa la ñu ne mooy borom jaam ñi yàlla may leen ñun ñu yegg ba ñoom ñëpp ñu bul siw kenn ku ne ci bu sox seetaan seetaan si làmb ji nga na ci feem yoo xam ne yi bu soobee yàlla bu ñu fa ñëwee dañu fa wane yoo xam fa wane yoo xam ne yi dina neex ay am te bu boobaa loolu am yoo xam ne télé mënu bokk na ci ci li ñu ragalee fi ñuy jeexalee ah dernière question bokk na ci ci li ñu ragalee Modou Lo mooy mystique nee nañ mystique yaakaar nga bu bu jour ba mu mu mën a mu mën a téye Ama ci wàllu mystique yaakaar nga. non wolof Ndiaye daan na wax bëri muustu bëri doole toog gis nga Fallay daan na wax ne soo bëggee bëree amoo fit boo yeboo toog boo bëggee bëree amoo gàllaaj boo toog boo bëggee bëree amoo doole boo yeboo toog loolu nag duñ suñu seriñ du ñu wax loolu ba pare ñuy bàyyi dara bu ko jaralee baaraam jaral nañ ko suñu bopp suñu loos loolu daal la mën a wax bu ko jaralee benn baaraamam cànq la ñam jaral nañ suñu baar suñu tànk ak suñu loos boole ko ci. loolu rek la préparation la euh, day préparer ñu préparer rek mën naa préparer bu baax mën nañoo préparer bu baax mais yaakaar naa ci kàttu yàlla bu ñu daje ci géew ba képp ku dagg si làmb seetaan si bëre ci jour booba. danga kontaan da nga bëgg da nga xam ne lamb ji lamb la xam ne waa Sénégal mës nañu yàgg nañu ko bëgg waaye lamb ji neex et puis jàpp naa ne ñoom ñaar war nañu bëre deux fois ou trois fois yoon la bëre ak Balla ñaata la bëre ak Eumeu Sène ñaata yoon la bëre ak Gris ñaata yoon la bëre ak Lac de yoon la bëre ak euh, comment am na beneen mbër bi euh, yaakaar naa benn yàlla benn yoon la bëre benn yoon la bëreeg bàyyi ma njoon xëy na yéen a boobu yoon la bëreeg Bombardier nee na xëy na dootul bëreeg Bombardier sax xëy na ndax ñam ñam ñam ñam ñamaat waaye nag yooyu moom jot taxul waaye li wétu wër daal jàpp naa ne moom bu fekkee ne comme ni ma ko gisee nii bu continuer entraîner suñu bëree ama daan ko dañuy dellusiwaat ama daanaat ko comme ni ko ñeneen daanee yeneen daan parce que moom dafa am ay victoire yu mu am fii au niveau de Pikine bu ñuy war a bëri ñoom itam dañuy jàpp ne moom dafa am fu mu dugg fii Pikine def fi mais moom bu fàtte ne ama ba dafa dugg parcelle roñ ñëpp daan bàyyi pël daan sos daan papa sow mi nga xam ne barki Demba Ndiaye maa ngi koy maa ngi koy kile ah Modou Lo ko indi ci làmb ja keroog sax yaakaar naa ne ah maa ngi koy wax ne nga ñaari séer la indaale woon dafa yaakaar naa ne Modou Lo dina seetaan si pour bu daane ba pare wax ko ngem ba mu ngem bu mu ñëw daanal ko doog a ñibbi këram waaye yaakaar naa ne loolu daal bokk na ci li nga xam ne li ñuy préparé bu kontaan ci yow bu baax a baax waa Equivox TV ñu ngi lay nuyu bu baax waaw kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax maa ngi leen nuyu bu baax a baax di ñaan nag seen télévision bi surtout yow nga xam ne xam nga liggéey bi Euh, ñu bàyyi la nga rek nga def sa liggéey ndax xam naa ne ci kàttanu yàlla fa ko teg foofu rek lay doon di ñaan sa borom yàlla may mu yaatu lool ba képp ku ci xaj bokk ci bu soobee yàlla merci beaucoup